mucceguloo parce que bu lay daal doo ko yëg buy yëg si du la yëgal ne maa ngi ñëw mën nañu wax ne day yot ba yëg si te bu la jàppee di tëdd bon nag lu mel noonu bu lay yot di yëg si te nga xam li tax bu yëgsee du la laal mais wax dëgg yàlla nga war a taxaw nag jël li tax bu yegsee du la laal nga jëfandoo ko loolu nag du dara du dul masque bi xamante ne moom ngeen takk kenn ku nekk si yéen masque boobu bu ngeen ko takkee mais Covid bi bu ñëwee mais day romb dem. mais du loolu rek mais yéen seen bopp bu ngeen ko amee doo leen ko mën a jox seen njaboot doo leen ko jox keneen parce que aar sa bopp baax na mais yërëm sa njaboot say doom say rakk say yaay ak ñeneen ak ñeneen. ba doon jox feebar bi loolu itam responsabilité bu mag la bon nag takk leen masque yi takk masque boobu nag ñun ñëpp ñoo ci war a taxaw le président de la république def na lépp lu mu war a def tënk nañu politique yëpp ñi ngi si le terrain nuit et jour depuis le 2 mars mais fii ñu toll nii li ñuy ñaan sénégalais yëpp mooy ku nekk xam ne mbir mi mi ngi sa loxo ñu ngi koy ñaan bàjjanu gox yi ñu ngi leen koy ñaan parce que koñ yi ak ruq yi ak biir néeg yi yéen yéen a am possibilité xam lu fa nekk dugg fu bon nag mission boobu jox nañ leen ko organiser wu leen xool nan ngeen di siy taxawale délégué de quartier yi parce que délégué de quartier dafa représenter état si quartier représenté maire bi tam si quartier ñu ngi leen koy demandé ay yi ñu ngi leen koy demandé di demandé même liggéey bi médecin chef bu district yi agent communautaire yi mais képp koo xamante ne rek am nga baat si quartier war nga taxaw ne sàmm me danaa fexe ba ku dox si fii si quartier bi rek di nga takk sa masque loolu buñ ko defee Covid bi